salaamaaleykum cher internet bu univers info tv day nekkaat toujours mbégte contentement jàkkaarloo ak yéen euh, tey nag dañoo xaw a toujours dugg ci li nga xam ne moo di lu làmb tey nag dañoo ñëw fii ci jàmmagën euh, fekk si ki nga xam ne moo di Laurent mu nekk nit koo xam ni c'est la plus l'appel ñu koy présenté dama koy bàyyi mu nuyoo rek bu ko defee ñu daal di xuus mën a jëm ci waxtaan bi salaamaaleykum Laurent yee ginnaaw ma sant yàlla bëggee jàmbaar yi ñoom daam ngay king papa yu sama rapport di ko bëggee di bëggee petit sama xarit petit pa mbaalo maa ngi lay bëggee dem yee di bëggee jàmbaar yëpp di jégalu nag àdduna waaw di bëggee ñëpp yee Laurent ñu gis ko ci beneen facette maanaam euh, plus évolutionnelle maanaam instant bi level baa ngi yéeg gis nañ ko ci lutte li nga xam ne di MMA boxe bi waaw noonu la demee moo tax niveau bi mooy yëg waa gis nga te waaw man yëguma ko woon gisuma ko mais yaa ko wax nii mhm. te am na ñeneen ñu ko wax ko waa mhm. yee comme sant yàlla bu wér comme que niveau bee yëg mhm. yee ñu doon gis say entraînement tout ci internet bi nga nekk di laamiso ak nga xam ne moo di rëg-rëg ak Siteu ñu nekk sa frère yoo xam ne instant bi ñu ngi lay jàppale rien que pour nga jël affaire bi nga xam ne énément incha allah te si kàttanu yàlla yee lu yàlla di maye fekk jeexul dama koy jël quoi ndax yàllaay mais man mënuma yàlla laay ñaan barki allah ji fàllu yàlla na ma yàlla suturaal may ma si ndam mais man xam naa ne man jàmbaar laa waaw te am na li ma si bëgg lu bëree bëri moo tax bii nii waaw waru ma woon a ñàkk jom daal fa laay waxee ak yow doo ngaaxa mhm. lees léegi le fait que Reug nekk fi nga xam ne moo di Caaroy jàmm ga ñu gis ni diggante bi ratax na côté seen euh, diggante yeen ñaar te la plupart mbëri daawuñu dundee noonu wala loolu simplicité Laurent la non man nag man man man aw ma kenn problème gis nga Bombardier Mbuur la dëkk Tapha Bawol la dëkk te gis nga maa ngi man man mbër yu may bëral sa maa ngi ñoom jàmm lañ se man aw ma problème mu àdduna mm-hmm. barki yàlla mm-hmm. euh, léegi nag ñi daal di gis ni que euh, le fait que nga nekk ci beneen lutte yaa ngi naan esson bi man du ma lutte du ma du ma mbër mu ndaw lan moo tax tout le temps nga ni man du ma mbër mu ndaw damay damay dem ak ñoom Tapha Tine et consort mais nag boo xoolee boo non demaguma de maa demb fii démb damaa raaroon kër gi rek waaw <laughs> sa ma damaa soof de garaaw comprendre ah. yee man ba ma commencé si làmb ba ma déclenché teg si làmb comprendre hmm. yee dama ñëweek ni man mbër bu mag laa toujours loolu laay dawee mais nit da ngay gëm sa bopp quoi hmm. yee boo gëmul sa bopp de xam nga da xaar da ngay waaw naa xaar quoi walaay mais tey ngay bokk ak tafaatin ngay bokk ak tafaatin ah, ci li nga xam ne moom nga jëm lan la lay def parce que nag nañ waxante dëgg Laurent est nga benn niveau boobu noonu noonu ba war a laami soog tafaatin yàlla na ko yàlla suturaal mais kon na mais man saay doomu jàmbaar laa damaa gëm sama bopp man bis du rëy si man mhm. non man bis du rëy si man man dund naa lu ne moo tax bis mënul rëy si man daal mhm. dama koy jëli maa ko fa am quoi. Mm-hmm. sànq yaa ngi wax ci sa biir wax nga ni Laurent amul benn problème mbari yëpp la amal jàmm te du kaafee fan yi ñu ngi gis ay problème mu sew ci mbëri lay jógee ndax ku ci mel ni Khadim Ndiaye mi ngi accusé ki nga xam ne moo di Lirou nee na daf ko bëggoon liggéey ci kaw bi mu demee ngénteem est-ce que genre yooyu te bu dee am di ngeen ñëwee di demalanteeg dikkale. non mais ñoom ñaar yooyu soo xoolee dañuy mbalagante rek. Mm-hmm. barke yàlla ndax ko déplacé wu dem sa xew loolu noonu ay waxu mbalag la nii rek. barki yàlla mais jib coo daal man loolu gisuma ni problème la daal mais man laa la damay dem kër mbër damay lekk kër mbër damay naan kër mbër gi nga man lu ma yàlla tegul rek nit mënu ma kaa teg waaw man yàlla may teg te dama koy nangu quoi xam ne lii yàlla ma ka teg mais man lu ma yàlla tegul barki allah ji fàllu nit mënu ma kaa teg wóolu naa ñëpp man ñëpp laa àndal. mais est-ce que Khadim euh, na dundee rek def naa sama xel ni. dama laa xeb te man damaa xeb moo tax wóolu naa ñëpp bar sëñ Fallou mais dañuy faral di wax ni que àdduna boo ci nekkee même loxo bi sax warta wóolu loxo bi te dew tamit milieu bi nga nekk milieu làmb la da di gis lu ne mystique ci yéen la fekk baax non man bu ma bëree ba pare rek simina yëre mbër bi quoi damay doon quoi comme nii ñu koy dund quoi mhm. yee ndax làmb day jeex mhm. tamit man du moytu nit mhm. tamit nit lañ wax ba pare nit nga koy moytu non non man moom bokk maag comme genre boobu quoi. Mm-hmm. Yeah, billaay mais lan moo tax mbër yi saa bu ñuy commencé di wax rek soit maa ngi sant Waly Seck maa ngi sant lii mais Laurent tout le temps boo koy dégg ci ay waxam moom waa koñam lay du tudd benn artiste toppul benn artiste. mais naas wax nga loo am solo Waly Seck nga tudd tamit Waly waaw kilifa si dëkk bi. bar sëñ Ba man man nag damaa tàmbul di sant. lu garaaw ngay wax ni barki yàlla mais man damay bëgg nga may am envie di leen sant man damay bëgg ku ma jàppale heure bi gis nga fi ma fekk te tamit war na am oto war naa toppe sama xalaat def lépp ak lépp comme ñëpp bar sëñ Bamba mais yow say interview duñ la gis nga tudd benn waykat te Xaadim Njaay léegi fu mu waxee rek daal ne maa ngi nuyu waali sama kilifa ah ñeneen nag ñeneen ñi naan maa ngi nuyu waa suba teel Xaadim Njaay waxe bu daal ne maa ngi nuyu waali Bàllaago sekk sama kilifa di nuyu yaayam te yow te du ma gis man Laurent ci kii mhm. war na xaa nuyu quoi te mhm. man aw ma problème boobu de pour nuyu leen nii lool du dara <laughs> barki yàlla naa loolu du problème de man ñëpp laa nuyu yow man doomu dëkk bi laa mhm. doomu xolu yàlla la bilaahi tey bu ñu waxee Laurent Ndiago te tout le temps fu ñu ko tuddee rek mu daan ni Serigne Fallou Serigne Fallou est-ce que dafa am lu mu la defal loo xam ni tey jii da nga ko war a tudd quand même gërëm bi génnul gaal man li ma defar barki allah ji Fallou bu ma toogoon di la ko du jeex billaay walaay taalaay mais yàlla noppi na ñun lu nekk suñu xol ñun xam nañ ko ko waa mm-hmm. yee nañ koy dund rek tey jii est-ce que lim la defal moom Serigne Sëñ Fallou mën nga ñu cee wax benn boo xam ne c'est trop marquant daf la marqué. ma wax leen yow bu dul woon Sëñ Fallou sax doo fi ñëw ginnaaw yàlla. Mhm. yee man sama tur fu mu egg saay man bu ma demee bay jàq bay bëgg a sonn sax daf may wol. Mhm. wóor na Alaaji Fallou billaay man lu may wax man maa ko xam. Mhm. te dama kaa dund. yee nit munu kaa xam quoi. mais yàlla noppi na mais. tamit waa di sant comme ñi ay Waly Seck ay Pape Diouf amee di sant tamit sama benn gaan ay dara mm-hmm. waa ay dara borom baax damay gis ay business yi muy dund si TikTok beeg lépp mm-hmm. waaw ay dara mm-hmm. champion la quoi ay dara borom Grand Dakar borom baax la ko waaw bar sëñ tey euh, Laurent Ndiago dund na loo xam ne tey jii ci Serigne Fallou nekk na lu ko marqué mais ak des fois sa religion du def benn problème. waaw problème comme maanaam problème le fait que le fait que ngay nga nekk chrétien euh, des fois est-ce que parent yi du am benn hmm. lu mu leen di indil quand même. non non yow yaa ngi gis lan laa sol kii wu sëñ te si kër gi laa yeewoo barki allah gi barki leeru alxuraan boo duggee suñu nekk photo sëñ Fall maanaam fu may teg sama ci kaw nii photo sëñ Fall moo fa nekk quoi. mais loolu problème ñun ñëpp benn lañ. yee man man lu gaay gëm gëwuma ko noo kii fii la kii non non. Mhm. yee ñun ñoo jéem si maam Adama ak Awa. Mhm. barki Alaaji Fall te ñun ñëpp ñoo bokk benn àtte bu ñuy àtte. Mhm. ñoo yem fa yàlla comprendre moo tax man gëwuma lu gaay gëm. yee man lu doon yàlla rek. maa ngi ci quoi. yee man lu doonul yàlla de ka ma jaaxal. mais lu doon yàlla moom aw ma si problème. waaw. mais tey jii mbëri dañuy faral di def bu combat amee suñu leen jekkoo ñu daal di indi certificat médical wala ñu jékki-jékki annulé ba tax na yooyu sax mi ngi commencé di éteindre lamb bi en tant que yow porte de voix nga yàgg ci lamb bi am ci benn tur bi lan nga si wax. waaw yàlla nañ si yàlla musal man loolu musuma dal musul dal sa mbokk. Mm-hmm. Eh, ñu muy métti la yàlla na leen ko yàlla teggil mais man bu ma gaañu woon sax gaañu métti bu métti mais bu ma si xawee mën a bëre tuut damay bëre yi ndax man bëgguma waaj ba muy jege may tas yaakaaru promoteur wala yaakaaru supporteru ñu may bëreel wala samay supporter mhm. yaa man bëgguma di tas yaakaar quoi. mais ñenn ñi yow xam nga ni carrément euh, li nga xam ne moom la ñuy yóbbu nekkul nekkul certificat médical le vrai certificat médical. dañuy léegi nag ñooñu noonu ñoom ak CNG la quoi man loolu du sama liggéey. mais yow mosoo ko def te du ma ko mës a def si kàttanu yàlla bu ma gaañuwul du ma mës a nekk gaañu naa di woo loo xamante ne nii du ma arrangé ëllëg. te mhm. foobar feebar kenn du ko xëcc ko waa. Mhm. ñu gis ni tamit euh, coté Ada Fass sa xarit la. Euh, gisoon nañ benn interview nga wax ci moom ay kàddu yu rafet. waaw mu nekkoon tamit ci tolof jël Ada Fass ak wéer ko sama xarit day xaw a garaaw man. mbër yëpp du sa xarit samay xarit lañ. mbër yëpp samay xarit lañ. Mhm. mais Ada Fass daa si natt yoo xamante nii. ñun ñoo bokk làmb dañ ka war a yuuxu quoi nit ñi bàyyi ko xel mu génn da waaw man naa ngi sant yàlla ba ma ko yuuxoo yàlla tamit xam xaw nañ si jàppale tamit génn nekk na si jàmm yàlla na ko yàlla may jàmmam rek mais bu mu génnee tout dafay defoon mariage bu am ba jékki-jékki gis divorce bi yaa ma ko wax de Laurent Basse Diakhané xam nga la ñëpp euh, ne nañ Ada a bëgg ma sant la <laughs> ah ay noonu la demee comprendre <laughs> comprendre nga. yee mais loolu yow yaa ma ko wax ma ko quoi. mais mhm. waaw damay dem tuubaa si kàttanu yàlla bu ma fekkee fii Sénégal. Mhm. mais tamit man bu dee dañoo tes dëgg bu neexee dafay tes bu naqaree dafay tes mhm. yee bu ak ñaan ma yàlla mu tes mais bu demee ba tes tamit comprendre yàlla na fa jàmm xaj dëgg. yee loolu la quoi mais toujours tamit loolu la gaay wax mhm. ndaje bu neexee dafay tas bu naqaree dafay tas mhm. waaw gis nga mais Laurent lan lay waajalee le 14 bi ak bi nga amee konxaa mu leen la tey jii nii nag Laurent dafay génn nag dem voyage kii ba nga yëg non bar sëñ Bamba nag xoola comme nii rek saay man déggoo li ma la toujours ma ne la man bis rëyul si man mhm. barki Allah ji fàllu man dara feesul sama bët waaw ñun tamit gis nañ lu ne def nañ lu ne mhm. fee ñuy dem tamit xam nga dañ fee fekk tamit ay nit rek yoo xam ne ñi ngi foofu dem fa mhm. waaw tamit lan mooy problème bi mais boobu dafa différent ak làmb bi boobu foofu dóor la waaj day tëdd sax ngay continuer di dóor gis nga ndeysaan mais xeex la dañ ngir bëgg a tekki mhm. barki yàlla bu ñu yoroon alal nii duñ dem di songante di dóorante ah. yee buñ gisee ku bëgg a dóorante sax dañ leen bul si dugg nekkal si leneen liggante sa bopp. yee mais instant bi yàkkante bi nga xam ne am na ci millier milieu showbiz bi xam nga nee nga sànq waale da ko war sax di ko bëggee. Mm-hmm. te tout récemment ki nga xam ne moo di rakkam Alioune euh, dafa def mariage mariage boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mais dafa mujjee bëri li nga xam ne moo di ay coow. comme par exemple euh, am nañ ci ay vocal yoo xam ne day fuité maanaam Euh, tey yan message nga war a ci ñi nga xam ne dañuy jël vocalu jàmbur di transférer ay wax yu yàqate ci biir affaire mais loolu noonu. yee man moom du ma yàq ni man damay vocal man du ma la bind sax man dama lay vocal quoi. Mm-hmm. mais am na ñoo xamante ne nii. yee boo leen bëggee yàq nar leen a vocal mun nañ la yóbbu si yoon rek. Mm-hmm. ndax yow décision yàq leen nga jël. Mm-hmm. yee yoon yoon bañul lool yoon day def liggéeyam. waaw. mais ba pare yàq bi ñu nekk à l'extérieur la ñu gën a jox doole ku ci mel ni am Amzo am Amzo Sozo nekku fi mais. kan mooy Amzo Sozo. yow doo suivre Amzo. kan ma ko. xam nga barki allah ji fallu xaw ma ko. barki leeru alxuraan xaw ma billaay dañ kaa yàq. non am Amzo moo nekk nit koo xam ni. <laughs> à la nekk foofu lay nekk ci vie hmm. mais bu problème amee Sénégal lekk day faral di dugg di envoyé ay nit ñi comme genre comme genre Adamo ñoo bokk seen ah, moom xam naa ko dama koy dégg te waaw am na ay mbokkam yu dëkk fii sax si ginnaaw hmm. waaw ñëpp ñoo ñëpp mooy loolu waaw waaw yàlla na leen yàlla defaral jàmm daal kon yow daal yàkkante bi en tant que porte de voix dañ cee war a wax mais lan si wax que nit ñi ñu defaraat seen toogaay wala soit bu ñuy def vocal yi ñuy bàyyiwaat xel li ñu war a wax quand même. mais naa ñii di yàqaate tamit di génne ay vocal jàmbur ñoom yàgg-yàgg dinañ génne seeni vocal rek ah man loolu laa gi barki allah ji fàllu fii laa la wax nii gaan koo lebal téeméer mun na la fay mille francs billaay walaay taalaay mais ñii ñi yàq yàlla nañ am xolu muñ am tamit xanga sutura quoi ba bañ a fayu mm-hmm. tey Laurent euh, doon na dem baat di di suivre yenn artistes maanaam di dem di bëggee di ñëw comme ni ñu koy defee. dem fa comme des fois nga dem dugg Pape Diouf. des faa nga dugg Pape Diouf bëggee ñëwaat. naaxa te duñ ko gis tax ci Laurent. naaxa maanaam naaxay dégg nag comprendre mais barki allah ji fal mosuma yëg kaw seen mosuma dem soirée mu mais tamit sama jot moo ma xamal mais bu ma xamee damay dem tamit féexal xol yi quoi. Mm-hmm. noonu la demee dangaa bëgg ma sant la ah. a <laughs> ah, comme ba ma def émission ba pare maa ngi sant galas borom portable yi lu mu defarul baaxul comprendre nga ñun galas ñun galas rek la ñuy topp galas a tax ñuy naan galas portable bu mu defarul baaxul di sant Ibra Bool borom cek-cek bi fu mu dawul baaxul billaay noonu la demee gi nga damay xuloo di def émission. waaw mais bala moo tax Laurent mu firi man mosuma gis lu mel nii lu mel nii wala fa ba léegi maa koy soo gi firi bi lan la. non man nag nii laay dundee quoi xam nga rek ñun ñëpp benn man lu gaa gëm gëw ma ko. man am naa coo boo xamante ne barki allah gi fàllu képp kii dund làmb amul coo bi ma am maanaam man lu ñëw rek antenne naa ko mun naa ko dégg Mhm. mais léeg-léeg nga am succès boo xam doo ko maîtriser après gis nga. Mhm. lu ne la si dal. yow instant bi da nga maîtriser sa succès. barki allah ji fàllu déggoo man doxeewu ma comme Laurent am na tur day topp xale jigéen ñi ndax lan turam Laurent am na tur day topp kii ndax tuuram non man loolu gëw ma yee man damaa gëm man lu nekk si man du si man yàlla la mhm. barki allah ji fàllu man léeg-léeg nit sax may wax ne da nga am tur wóolu mais man dama man damaa déclenché man sama booy ba tey nit ñi dañ maa xam. Mhm. ya man ñi may fréquenté ñëpp bokkuñu koñ. Mhm. mais bu sutee instant bii nee na dafa bëgg li nga xam ne dox moo di dox suufu New York bi Laurent moom tamit ban lay réeré. bu sutee yàlla na ko fa yàlla yóbbu si kattanu yàlla ndax boobu ba tey mi ngi koy wax tamit man tey jii nii bu ma xawoon am yenn moyen maa yóbbu. yee moom loolu la bëgg. mais yow nag lu tax yow lañ olof danaan bala ngaa laax jaay da laax lekk. saa man amul fu ma mënta dem fekk maa ngi dund man ànd sama xel amul fu ma dul dem. may dem Burkina Faso Congo Brazzaville Togo ñoom Taïwo. ñoom tay la. Taïwo ay Hollande ay Nabi Suger. Nabi Suger Nabi Obatal la. ay Fass Mbao comprendre nga. billaay ay Éthiopie ay Libye man damay wër monde entier quoi man. le instant bi le 14 fan koy fan lañ koy fee la France Paris Lyon. waaw. mais est ce que boobu nag nag da nga style. ay kilot laay sol. Hmm. kilot gis nga. man néew ma si yu gars nekk saay mais bu seddee ma sol jean. ah mais nan nga solee jean di bëri. ah fekk waa kiloon ngay bëre noo kiw saar bu gudd ak pàcc boo xam ne di mën a écarter say tànk ak yaram yaramu neen ak gants yu ndaw yooyu noonu war noon am gants mu gën a neex. ah mais ñoom c'est euh, moo tax ñu leen jox gants yooyu. saa loolu kay professionnel loolu làmb ko gën a professionnel di. Ah. ah yow gisoo ni moo gën a professionnel. fee boo jekkoo pour mu dee day dee. waaw moo tax. kon fee da ngay dóor kon Laurent risque boobu moom pare na. wala est-ce que nëbbuñu la woon lool. saa man man daan nañ man lu may dugg ne day leer nañ bu laajee bakkan dama ko fay bàyyi rek. waaw. mais yaa ngi doon wax naan que dund bi ngay dund fii moo gën a métti que li nga war a dund fële parce que fii nii sax jot nañu xaaj sa bopp affaire yooyu. sama bopp bi daa leel fii. ndax bopp bu tëj comprendre yow xeex lañ wax. bu doon fii la xeex da ngay gis ku yor paaka daw àgg la pour jamati la. mais fee xeex rek dóor tànk dóor tànk te bopp sax mbëkk dañuy béy comme xeex boobu méttiwul mais nag xeex boo xamante ne foog ñu ñaan si yàlla mu may ñu ndam waaw ndax saay man damay bagaar de. mais Macky bi mu yëkkatee xaalis may ko euh, li nga xam ne moo di mbëri est-ce que jotoon na wàlla. Macky laa may mbëri xaalis ah, ah? fan la woon. Laurent ah, li may wax yaa ma gën a xam parce que ñoom giri ñoom ñëpp ngi woon ci séddale bi man moo tax ma lay laaj ndax sa part mais léegi danga ma ban ban kañ la rek bu ma xalaatee bu ma fekkee moo yàggul tout récemment mais boo ko xamul kay sa parce que jëkku jëluñu seen téléphone woo la quand comme Gambie lañ ma fekkoon ñu woo ma jotuñu ma déedéet yow ñan la woon ay mbër yu mag yi ñi nga xam ñoo féete ci mag ci kaw mbër yu mag yi ñu am ay ñaata at. yan ci mel ni Gris Bordeaux ñaata âge âge âge laa la at bi. non man âge Gris yooyu. léegi nag ñu âge yooyu noonu lañ woo man aw ma âge boobu. mais du question de âge mais plutôt lamb ji lañ lañ jox xaalis lamb lamb. Ah, lañ jox xaalis. waaw ah, ah man joxuñu mais may naa leen si xel bu xol bu sedd guy bu dee si laa bokk may naa leen mais lan moo tax mbëri bu ñu ñëwee foofu ñoom dañuy kaas dañuy bëgg bokk ci biir Laurent tey mu ni may na may na leen. man kaasuma de man naa fi toog di kaas ndax xaalis lan mooy xaalis kayit la boo ko lakkee nga xam ne du dara. Mhm. waaw bu dee bu dee kii bu dee weñ bi boo utee marto daaj mu dëng comme duma si kaas xaalis moom moo lool man. mais dafa rafet ah, Laurent nekk mbër ñu woo ko ci genre séddale yooyu parce que tamit nag lu ne def nga ko ci làmb pare tur bi tamit mu ngi fi kame garaawul woo nañ mag woo ñu ma nañ séddoo nañ lekk ak jàmm man néew ma si yooyu de saay ah, man mun naa am lu ne fekk maa ngi dund maa ngi la ba tey fekk maa ngi dund man ànd sama xel normal mun naa am lu ne te daf may lew quoi waaw. instant yi Laurent yan mbër ñoo nekk ci xelam ñan ñoo koy moo nekk sama xel moom mm-hmm. waaw moom mii nga xam ne moom laa am war ko bëri. tamit di si woo Sénégalais mu ñaan ndax tamit waaw comme que nga ne par exemple daa woon mbër yu mag yi jox leen te man man man yóbbu ma drapeau Togo yóbbu ma drapeau Congo Brazzaville ah man drapeau Sénégal vert jaune rouge étoile si digg hmm. tamit. mais foofu boo àggee da ngaa def way hymne national est-ce que maîtrise nga balaa maa dem buñ tegee si table bi lu leer bu ma demee moo wéy équipe nationale. waaw léegi mayuñ ci tuuti rek. buñ tegu non non ñu lu leer. ah mais loolu c'est forcé parce que yaa ngi jël drapeau bi di ko porté kay da nga war a maîtriser suñu hymne national. buñ ma jàppalewul du ma ko porté de. ah waaw. lan moo tax doo ko porté yow li ngay porté dafa garaaw de couleur yi nga war a yóbbu. couleur yi may yóbbu. waaw. sëñ Fallou mooy Sénégal ku laa laajteel Senghor. drapeau bi laay yóbbu rek. barki allah mais yaa ngi ko yóbbu te maîtriser wu hymne national. drapeau sëñ laa yëkkati mooy Sénégal ku weddi da ngay laajte Senghor. dëgg la yor naa la mu koy joxe rek. waaw ko. Euh. boo ko wooyee. xam nga moom moo bind PC tout Fokola frappe le bala fond yooyu ak lion rouge bi allons-y. waaw yooyu ñamal rek mais du eggali comprendre nga. mais bu ma ah sëñ Fallou mooy Sénégal ku weddi laajteel Senghor Senghor da kaa wax de. <laughs> la ko léegi ñu pivoté toujours daal di ñëw ci li nga xam moo di actualité sport kii nan laa ko mën a waxee politique ñu xool ni tout récemment émission bi euh, Sonko mi ngi nekk ci ay yu bizarre parce que ñu ngi dégg dafa grève de faim après ñu yóbbu hôpital nanguta nanguta faju parce que propre moyen yow lan lan ngay gise loolu en tant que doomu Sénégal waaw daf may métti nag dama koy xool comme sama nijaay sama mag sama papa sama xarit noonu lay demee rek quoi tamit saa xiif daa métti de mhm. barki allah ji fàllu bu reetaan bar sëñ Bamba tamit ye fekkoon man la man fekkoon man la ma tëj kii lekkul naanul barki allah ji fàllu ma delloo ko ay mbokkam mais mu nekk si jàmm ma nekk si jàmm mais man mënuma tëj kii lekkul man may lekk non non di bëggee nag képp kii sol ndax keroog si waaw kaas kii LG laa entraîné waaw ñu accueillir ma nag nekk man nekkin bu rafet waaw man homme de tenue damay romb sax ñu may bëgge yee du dawal sama mboto bañ jàpp ma mbarki allah ji fàllu ndax om de tenue tamit man man xam naa ne am na fuñ ma teg foo xamante ne nii yee dañuy dañuy déglu samay affaire xam ne kii jàmbaar la yee di bëgge képp kii sol tenue maa lay bëgge baax baax yeewaa ndax kon ban message ngay lancé rek nga xam ne moo di Macky Sall wala ñi nga xam ñoo nekk ci lo ci loxo yu Sonko. waaw noonu la demee mais Sonko moom Macky moo ko jàpp te du voilà. waaw parce que instant bii nag mi ngi prison. waaw problème portable la mais foofu du palaasam Ousmane Sonko ay prison yi du palaasam. billaay walaay taalaay te moom tamit xam nga doomu làkkat la ko waa yee am na loo xam tamit di bëggee ñëpp mais làkkat maanaam am na loo xamante ne ni yee mun na kaa rey sax mm-hmm. waaw ndax da day gore quoi yee day gore mm-hmm. barki allah ji fàllu tey boo ci lancé rek mooy ñu jëm koo ubbi li nga xam mu delluwaat ci njaboot barki allah mais loolu kese mm-hmm. yow nit bu sadik sax bu soxor sax laa la wax nii yee boo ko waxee loolu la lay wax mais tamit metti na de waaw tëj nit boo xam nee nañ la lekkul mu ngi feebar sa yaram day daw quoi si logique quoi si gaawaay yee day am loo xamante ne nii xam nga loolu daal si xel laay wax ak yow barki allah ji fall tey Laurent Ndiago lan lay lan moo nekk ci kanamu carrière lan lay préparé lan la bëgg ak fan la ko làmb war yóbbu non làmb moom man man sama gëm-gëm laa non làmb dina ma yóbbu fu sori fii ma xa jàpp ni bu ma xa bàyyul quoi ndax man am na lu neex sama kanam lu bëri loo xamante ne ni sama game la man. Laurent lu muy xaar pour marier yow. yow man tey jii dawalaguma oto man moto bu may dawal baaxul ah amaguma kër ñun paquetage la ñuy tëdd nga bëgg loo ma takk jabar xanaa bu ma ko takkee yow bëgg nga ñu takk la boo ñëwee naaxu góor tëdd nga yow dugg seen biir tëdd. yow bëgg lool ah ah ah ba loolu nag moolu ndax léeg-léeg ni da ngay sa jëkkër gaan bu buggee mooy loolu sax xool yenn booy di cetal ay bëtëk ñenn ñi mun nañ la doroge nga nelaw sax ñi mel ni comme sa jëkkër vancé wu ah. du def kon tey may takk jabar déranger day génn néeg bi day génn néeg lis day génn néeg bi nabi day génn néeg bi xam nga ren day génn néeg bi waaw njaboot gu sew rek yuusu naa ko bàyyi bokk ak moom ñëppay génn saa yi comme demee esan ñoom ñëpp nuy génnee bàyyi ma si dig géew ñëppay génn bàyyi ma sama jabar si néeg bi waaw mais te jii nii nga naa ma Laurent takkal jabar Laurent nga xam ne paquetage la tëdd man damaa waa na war a am jabar xoola dugal sama kanamu oto dawal ba si ñoom yuusu wàccee verre bi mun na leen je vous salue ma dawalaat bàyyi leen foofu noonu ñu toog nekk seen waxtaan comprendre nga mais ma takki jabar yóbbu ko si dàmbeloo bi fee te booy naa la booy bi ñu tëdd ay jàllaabe la ñuy tëddee booy nii te booy mooy loolu balaa maa tëdd si ñoom dañuy tëdd noon di xaar imagine sama jabar teel nelaw booy ñëw si néeg bi noonu tëdd te booy man sax booy man wóolu ma ne wóolu ma man bu ma takoon jabar amuma fu ma ko dugal bokk ak ñoom berleen ne barki yàlla guddi gu ndaw gi guddi gu sew gi booy def musiba dawaat tëdd nekkaat seen bopp ñun dañoo njiroo ma jabar mun na ba nga sax waaw imaginel te liis moom bu ma takkee jabar du génn néeg bi lay wax da ngaa waane da ngaa teel a takk néeg bi du ma ko génn bu ma muñee ba bokk ak moom néeg bi kenn day ne bu lis génnul lu ma génn <laughs> ins moo fa ñuul neex naa xam lu mu def suñ xëyee sama jabar dina ma ins tey moo def lii ah. waaw moom neex naa xam mais da nga message bi am solo ci côté banlieue bi que taw beeg yooyu ak yi nga doon expliqué. ah yow nga gis nga ndox mi di sama buntu gaale ngi daa taa ah. mais est Lus euh, amul ñi nga xam ne ay autorité ay autorité pour woo leen. waaw gis nga non. autorité comme fan. comme sa meeru koñ yi. ak ñi nga xam ne ñoo war a saafara. nag bu ma bul ko nëbbul bu dëgg neexee man am naa combat maire yi jàppale wu ma député jàppale wu ma comme ndox bu taaman man mis naa ko. mais xanaa dëkkoo ci koñ bi koñ na am eh, chef de quartier. waaw ñun tam waa chef fii am na chef de quartier kay bien sûr. waaye chef de quartier bi moom du wax ci ndox de bu dee daa wax ba sonn nag ñun daal moom ba dëgg yàlla man xaw ma madame la maire xaw ma monsieur la man maa sama bop bu ma yàlla mayoon moyen léegi ma def ay jalu suuf bu ma ko mënee def tëli karo man tëli karo dama koy rêvé quoi ndax daf ma neex. nu la neexee noonu. ah tëli karo saa tëli karo neex na de barke yàlla fii bu amoon tëli karo yow moo loo xam nga ne du taa. mun nañ toog si digg télé karo bi def émission mais fu mu dañoo wettu waaw ah, dañoo wettu donc Laura lan ngay ngay message ngay lancé ci côté làmb bi ak li nga xam ni moo di mbëri nan la ñu war a comprendre message bu may lancé comprendre nga mooy tamit man Dakar laay entraîné jee saa yow tey jii da nga may bëgg mun naa taal sa moto di dool nga ne ma Laurent ma geesu far balaa maa tourné mbëkkante teg poto wóorul tamit amoo far bu ma mën a jëndal oto yaa <laughs> da ni nga lancé message mbëri yàkkante ba wax yu sew yooyu laa lay wax. mbëri man saa man yàqu ma kenn bu ma kenn yàq. comprend nga yow laa ndax amoo far bu ma may oto. waaw dina ndax yow gis naa ni gars yi dinañ mën si yow xaalis de. Mm. góor yàlla yi. Mm. yow kay xanaa nga bañ a laaj. yow bëggal rek. <laughs> barki yàlla. waaw doo may ci dalinkoo bi ñu tëjee. waxuma dalinkoo bi de yow laa sax far. barki yàlla dina mel ni suum mber la kay waaw ñu ah, ñu dund ay suum mber maasaane may ma ci yooyu benn wax ma loolu barki allah gi fal waa lu ma la daa dëggu si man yow am nga ay far yoo xam ne ñu ñoo lépp waxal rek déedéet na loo gis moo ay far yoo xam ne mooy loolu wóoy ma hmm? waxuma la yow mu ngaam ay quatre far sax garaawul quoi mm. mais ku si gën a ceeb ki woo ko ne ko mm. boo jëndalul Laurent oto ma bàyyi nga xool rek tourage <coughs> bu la neex mais bu ma jëndee oto bu rose daa xaw a jigéen ni quoi nee ko man la bul ko nëbb sa bopp de. amat la amat. amat mooy safar. eh yow amat de. waa léegi même dalit ko wuñ teg émission waxuma loolu la nga may ni doo si génn yaa ngi ma ne woon soleil la nga ñëwaat ne ma amat la waa amat amat ñaan moo ma jëndalul barki yàlla naa ko am bàyyi la. boobu ba tey nee naa la takkal takkoo baax na. léegi bu ma tëjee ñu la neex rek délire délire loolu damay daane. Bamba eh, sama gaan la Bamba ay man nag naa loo leen de man ndeysaan yàlla daf maa gégle lool ay titi samay gaan lañ ay Viviane ndax tamit xam nga mais ñoom maanaam daa luñ boole quoi loo xam ne nii man ñoom dañuy toog di ma bëggee quoi ñee te xam nga te man duma ma toog sax di ko wax ak yooyu noonu barki allah gi fàllu mais ñoom dañ may béggee mais ñu takk la nga baax eh. ba nga sëy see gën a baax sëy eh. si woo yëngal kër gi daleen bi bii jeeg mais du jeegu léegi de loolu adesam dakaa woy ngir magu démba yi mais jeegu léegi bu ñëwee mooy loolu de ba naan la goro bi dafa soof lu ne ngay dégg sëyu xale léegi sëyu ñu day ñëw na sama goro de moom i te fekk woo booy sëy da ngay goro sëy man moom sama jaar bi sëy na sëy goro sëy mag bu jigéen mais ay raq yu góor ak mag yu góor bul sëy kenn waaw dañoo gaaw a yebaat <laughs> donc Amath merci beaucoup ah ñu ngi woon fii jàmm gën fekk si nga xam ne moo di. moom yaay taxawal léegi taxawal ma waxuma la Amath mii di de safar bi laa la après naa la jël en antenne incha allah. Ah, jeex na gaan ok gaan Amath gaan gis nga ah, moom may naxa waaw kon le 14 incha ñu daal di waaj daal koy dooleel mu daal dem. daan naa bu yàgg de sa adversaire bi euh, noo ko noo ko gisee noo ko gisee naa ñàkk la. kooku France la am. comprendre nga nee nañ ma daal français la mais man gis naa ne nit bu ñuul la. comprendre nga mais dina xam ne mi xeex ak ku soxla damaa soxla de. Mhm. waaw. da soxla mi ngi xeex soxla. bilaay te yàlla nañu yàlla suturaal na incha allah ok donc d'ici la portez-vous très bien euh, daw leen gaaw ngeen abonné ci page bi le meilleur reste à venir donc merci beaucoup